jërëjëf euh, maa ngi leen di nuyu waa Thiès 24 di nuyu info réew mi tey li waral bis bi moom mooy euh, man maay euh, coordinateur mouvement Thiès laa dëkk ñëw ci teewaayu invité bu ma Mamadou Thiam invité nga xam ni tey directeur école yi enseignants yi parent d'élèves yi dañ koy sargal ci sauvé gi nga xam ni moom la sauvé année scolaire bi en tant que un Thiessois mu doon koo xam ni tey du conseil président de la République du conseil ministre de l'éducation mais en tant que un Thiessois un Sénégalais ab benn enseignant dëkk fii ci diwaanu Thiès dëkk fii ci quartier bii di Baxdaat moo tëdd xalaat ni année scolaire bi war na koo mën a sauver ci lu dul moyen mën na koo mën a sauver ci lu dul marche mën na koo mën na koo sauver ci lu dul di xeex waaye mu sauver ko ci xalaat bi ko yàlla may moom moo tëdd Mamadou Thiam moom mu tëdd xalaat ni lii day mu xalaat mooy toogaay la bu war a mën a toog mooy syndicat yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy mooy mooy premier mooy première dame euh, ak président de la république ak ministre de l'éducation jàpp nañu ni toogaay boobu bu ci première dame bokkee ñu waxtaane ko ci xel waxtaane ko ci ci ci dàq intérêt yi te andi intérêt xale yi andi intérêt Sénégal dinañ ko sauver ci la Mamadou Thiam dama koy tiitaroo en tant que un Thiessois encore jël loolu xalaat googu yàqal ko syndicalistes yi yàqal ko état Sénégal ba ñu waxtaan mu doon waxtaan woo xam ne ci information yi ñu am mu doon waxtaan bu naqari waaye mu mujjee ci dëgg te dëgg googu après jàmm la andi jàmm googu nag moom la Mamadou Thiam sauvé li nga xam ne moom mooy année scolaire bi nga xam ne ñu bari jàppoon nañu ni année blanche lay doon kon kooku tey buñ ko dee sargal ci école bii di école euh, Cité Senghor di di école bi nga xam ne moom lay jàngalee autorité Thiès waa yu bari bari ñëw ñu jàpp ni kon ñun tamit mouvement Thiès laa dëkk bu dee li ñuy woote moo ngi ci dañoo war a ñëw teew jàppale ko moom ci sargal gi tak tàcc ko ak suñu loxo yi ñu am mais tamit sargal ko ci baat gi nga xam ne moom la yàlla dénk damay wax ni euh, man suma ma sañoon Sadio Mané Thiès lay dëkk su ma sañoon Mbaye Niang borom football bu rëy bi bërki démb di lom damas bi ma koy seetaan dama damaa fier mu doon un Thiessois kon tey histoire boobu nga xam ne tey jii nii jàpp nañu ni Serigne Saliou Touré nga xam ne ñun Thiessois yëpp dañ koy sar dañ koy tiitoroo di tiitaroo Serigne Mouhamadou Manirou Ndiéguène di tiitaroo Serigne Abdoul Aziz Aydara di tiitaroo Serigne Khadim Lo Gaydal di tiitaroo Serigne Serigne si fi nekk yëpp macha allah noonu tey lañu am yaqin ak tiitar gu yaatoo yaatu yëkkati suñuy mbagg ci Sénégal ni ki sauvé année scolaire bi Thiessois la. jàngalekat la dëkk ci quartier bu ñu naan Baxdaar nekk ci diwaanu Thiès ñu xam ko mu xam ñu tey ñun Thiessois yi nekk Sénégal Thiessois yi nekk diaspora bi ñun ñëpp fier nañu ni ñun ñoo sauvé année scolaire bi année scolaire bi ci xalaatu benn bi Thiessois di Mamadou Thiam ma ma yaakaar ni tamit noonu tamit la ci Thiès 24 tiitaroo wane ni moom it bañ na ba ni Thiès 24 moom it am na tiitar ak yaqin ci li nga xam ne moom moo tax doomu Thiès tey ji nii sauver année bi di si jaajëfal tamit waa info réew mi ndax ndax Thiès tamit ci réew mi la bokk di la jaajëfal bu baax a baax encore une fois daal mbégte la ñu am encore une fois yëkkati nañu ñun Thiès waaye encore suñuy mbagg ci àdduna bi yëpp ni ñun ñoo sauver année scolaire bi mu jaare ko ci xalaat ak ci kàddu Mamadou Thiam di ko jaajëfal bu baax a baax. man la Mamadou Mbaye euh, enseignant ci Demba Diakhaté également responsable politique APR nekk collègue bu monsieur Thiam. monsieur Thiam c'est sama xarit d'abord ensuite sama rakk la ku baax euh, ku am pas-pas ci li muy def euh, mu nekk fierté pour école Demba Diakhaté ak pour école Sénégal yëpp parce que crise bi ñu amoon dafa nekkoon crise boo xam ne euh, bu yàgg la woon presque duré na trois ou quatre mois donc monsieur Thiam moo jël initiative yi dem gis monsieur le ministre Abdou Aziz mbay gis les syndicalistes gis le président de la République Macky Sall euh, ñu toog autour d'une table pour trouver solution ci euh, crise bu yàgg boobu ndam loolu nag monsieur Thiam def daf ko def pour toute l'école Demba Diakhaté mais non seulement c'est pour toute l'école Demba Diakhaté mais c'est toute la région et ensuite c'est pour tout le Sénégal Sénégal yëpp moo am ndam tey Euh, enseignants yi ñoo am ndam parce que lii mu def nii enseignants yi dañ ci siggi parce que problème mu enseignant la problème mu Sénégal la problème développement Sénégal enseignant ñëw régler ko je pense que c'est extrêmement important donc monsieur Thiam ñu ngi koy remercier di remercier aussi au passage le président de la République di remercier l'ensemble des acteurs yi nga xam ni ñoo nekkoon ci yëf yi monsieur Thiam nag lii du première fois muy def lii parce que fële mu nekk ci Bagdad fexe na ba ndox arrivé fa fële mu nekk aussi fexe na ba jàkka ba nga xam ni moo fa nekk tabax nañ ko yooyu yëpp ay initiative yu muy jël la sa lépp lu siy jël day ñëw diisoo ak man ñu ànd ci liggéey donc vraiment on est très très fier tey ci monsieur Thiam on est très très fier ci école Demba Diakhaté on est très très fier ci waa Thiès parce que crise scolaire bi amoon au niveau national waa cees ñoo ko réglé doomu cees moo ko réglé doomu école Demba Diakhaté moo ko réglé muy monsieur du Thiam donc vraiment kontaan nañu bu baax a baax a baax. Euh, Mody Diouf je suis le coordinateur du comité du dialogue social Thiès ville. ñëw sargal Thiam mi nga xam. waaw euh, nga dafa am benn président de la république bu fi newoon Abdou Diouf daan na wax ni ku def lu rëy am lu rëy. Euh, Modou Thiam dafa def lu rëy li mu def mooy dafa dugal loxoom ci l'école ci crise scolaire bii yàlla def na nag ku ne dugal na ci l'école man mi wax ak yéen man maa yore dialogue social Thiès ville def naa délégation dem naa Tivaouane képp kuy sëriñ fii waxtaan nañ ci au niveau national bu ma parental bi ma bokk waxtaan na ci mais yàlla daa def ci mbaaxam parce que nag yàlla ku ne am na lum lay jagal jagale ci jagaleem nag Modou Thiam bi jàng fii école Demba Jaxate ci action moo tax crise scolaire bi réglé wu moo tax nag man sama comité dialogue social déplacé wu ànd ak sama vice président ak sama secrétaire fekk Modou Thiam ci l'école am bi nga xam ni fi la fi la fi lay jàngale ñu sargal ko ci kanamu directeur d'école am kanamu ay bokkam kanamu ay élève am mais kanamu toute la communauté de de de de de de de Demba Jaxate gis nga cérémonie tey bi délégué de quartier bi sëriñ bi euh, euh, euh, parents d'élèves yi anciens directeurs yi directeur d'école yi ñëpp ñëw nañu loolu nag dafa xam dafa am loo xam ne dafa am solo lool ci ñun parce que li ñu def Modou li mu nu defal suñu doom bi ñun wéyjur yi lañu ko defal ñun comité de dialogue social parce que yàlla daa def nattuñu ci école ñu jël pàcc boobu dialogue social mooy fexe ba jàmm am ci l'école ci la ñu xëy ci la ñuy gon parce que fu jàmm amul rek résultat mun fa am te Serigne Touba mu baax ma daan na wax ni jàmm moo moo baax tey jii moo baax ëllëg donc loolu nag moo tax ma déplacé wu ñëw fii cérémonie bu bu soobar la ñu yaakaaroon ni moom lay ne mais wax dëgg yàlla bi ñu fi ñëwee liñ fi fekk raw na sunu njortu ci rafet kilifa yi yëpp a ngi fi politique yi ak la crème nag boo tax na daal Modou daal dañ koy ñaanal fanam gudd lool ba yàlla fay ko action ci école parce nag yaatu na Modou dafa mel ni. li ñu wolof naa wax na na na ndawalu guddi ndawalu guddi ku laal daj rek da ngay jàpp ne yaa yore ndawal li ma dégg fii ci témoignage ñu jëmale ko ci sama doom bii Modou mel na ni Modou moom nan ko ñaanal fadam gudd parce que nag mi ngi ci lépp maanaam lépp luy baax rek luy defar rek mi ngi ci te itam nag ñu mel ni Modou la société bi jox euh, euh, euh, soxla gis nga réew état rek mënu ko defar réew ku ne boo xoolee ci penc mi lan mooy sa warugar ci réew mi nga def ko bu ko defee réew avance jërëjëf léegi euh, jàmm am des mooy suivi. mais li def nag mooy suivi mais rafet nañ ni njortu ni engagement yi jël état bi jël bi yoon ndax nag jaaroon nañ fi ak syndicat yi jaaraat fi mel na ni nag ragal naa ni ku ne tiire nañ ci ay ma état bi tiire na ci enseignement syndicat yi tiire nañ ci ma mais ñun itam les acteurs de l'école ku ce soit dialogue social parents d'élèves yi ñun itam yàlla baaxe nañu ba fekkee nañ ko. ak sëriñ si ñooñu itam dinañu fexe ba la fi daaw daa daan am ci rëq-rëq dootu fi am planifié nañu engagement yi am na yoo xam ne 2018 bii balaa jeex dina effectif am na yoo xam ne 2019 am na yoo xam ne 2020 ragal naa ni loolu moom na ci xel na ci seen xel dal ñun dialogue sociale à un niveau supérieur suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñu féete kaw jàpp naa ni jëlee nañu seen responsabilité ba loolu itam la ca war lépp euh, benn dinañ ko def. maa ngi leen di sant bu baax. donc c'est Modou Thiam. je suis enseignant à l'école Demba Diakhaté. moo waraloon nga xalaat ne xëy na bu ñu dajeeg première dame syndicaliste yi dajeeg première dame solution dina am ci njàng meeg njàngale mi. waaw sant yàlla parce que dañu xam ni comme grève man syndicaliste la dama daan dem di grève di yëg table di ŋàññi grève bi nu mu yàggee mais bu ma ñibbee sama kër tëdd ma xam ni grève bi ëpp na te jàngalekat du ñu dellu ginnaaw man jàngalekat laa te xam naa ni tamit président la république ki muy waxal. muy ministre de l' éducation moom ak jàngalekat yi nu sax toog table kon situation bu compliqué na administrativement mënatul woon dem ma ne kon naa jaar ce que j' appelle la diplomatie souterraine bu ma waxee ak euh, première dame moom dina mën a comprendre situation fu mu toll bu ko defee wax ak wax ak président de la République président dina mën a comprendre loolu lañ def. bi ma ko waxee comme am naa xarit boo xam ne day liggéey euh, première dame mu tudd Abdou Aziz Mbaye ko waxee d' abord nangul woon parce que dañu ñoom vraiment. ils sont dans le social te lii am na it am na ministre ko yor moo topp ko si ñetti fan di ko jéem a convaincre ko président euh, ne ko ministre je pense que il faut ñu def lii man am naa certitude que bu ñu ko defee solution dina am mu ne yaa ngi ñu duggoo ci loo xam après coow lañ juróom ma ne ko mun nga wax syndicat ma ko man maa leen ko wax te xam naa ne yéen demandé wu leen mais ñoom aussi ils ne sont pas demandeurs mais man en tant que citoyen en tant que enseignant man maa bëgg xool sauver école ko. ñu ànd ak ñoom dem bi ñu demee yàlla dimbali ñu bu waxtaanee ci waxtu ay waxtu yàgg yàgg yàlla dimbali ñu solution am nii la mbir mi demee première dame def ci lu dul vraiment faciliter ñu rencontre bi du moom moo signé protocole d' accord bi du moom moo convaincre président bi du ci woon dara bi ñu wax sax ubbi gémmiñam en tout cas créé na cadre bi foofu la noonu la mbir mi demee. mais est-ce que sa moromu syndicaliste yi yomboon na pour nga convaincre xam nga ñoom dañ ni woon duñ demandeur d' abord mais yàlla dafa dogal ñoom bi ñuy bi ma leen yóbbu ñoom guddi gi ma leen woo. ñi ngi toogoon di réunion ak xalif général je pense Niassène Niassène yi xaw ma bi ñu leen woo ñoom ñëpp ñu toog bi moo ko waxee on a eu Seydou Sène au téléphone mu ne ah bala nga coupé ne quitte pas syndicat yëpp yaa ngi nii man naa wax ak ñoom bu dee d'accord nañ ma wax la bul coupé ma déglu leen ñoom ñu ne waa ku ñu mënti woo dañ lay wuji parce que ñu ngi wuy si déjà un général à plus forte raison euh, la première dame amuñ ci benn problème de façon ñun ñun ñoo ko sàkku man leen waa loolu rek laa bëgg bu ñu ma waxee loolu nag ma ne kon mise man kereel ma cadre bi bu bi ñu demee man maa campé le man leen première dame du moom moo sàkkul laaj eh, ndaje mi jàngalekat yi eh, enseignant syndicats yi tamit du ñoom ñoo sàkku ndaje mi man maa am xel bi maa am xalaat ma bëggoon bu ñu toogee waxtaan xëy na ñu am saafara débat bi commencé ñoom ñu doon ñu jàmbaar syndicalistes wax dëgg yàlla défendre crânement lentre intérêt des enseignants n' est ce pas première dame tamit aussi nekkoon ku social xam ni li ñuy laaj lu yàlla lu yàlla yenn maanaa la mu jël téléphone am jox ñu président ñu wax ak moom téléphone mais ça n'a pas marché biñ demee ba mu xaw guddi mu ne kon nañ toog xaar ko ba mu ñibbisi ñu toog xaar ko président ñëw bi mu ñëw ak premier ministre bi mu ñëwee ñoom tamit premier ministre mu jëkk ko commencé ñu waxtaan waxtaan lu yàgg sottiwul président ñu ñaanaat ko ne ko président il faut ñu am solution tey bu dul loolu année blanche dafay am président daal ni bañu solution mais bëggul wax lu mënut nañ ko may mu woo technicien ministère ministère des finances ak ministère des bi leen wooyee ñun ñu reculer ñoom ñu doon gisante pendant plus de deux bi ñu gisante ñoom seen biir. techniciens yi di def ay gymnastique financier pour que au moins ñu xool fan lañ mën a dugal différence bi amoon ak ñoom pour yóbbu indemnité bi à cent mille ñoom bi ay vingt deux heures yi confirmé ko président bu ñu defee ni bu ñu ko yóbbu deux mille vingt dañ mën a eggalee séance bi dina mën a dina mën a baax président daan ni en ce laay doog a yedd sama kàddu ni waaw parce que bëgguma wax loo xam ne ëllëg du ko def nii la mbir mi demee yàlla def ci sutura ñu am saafara loolu moo wax tey vraiment ñëpp delluwaat ci classe di jàng ñu ci sant yàlla bu baax tey jii xel dal na mais yow également xëy na euh, kontaan nga ci peut-être liggéeyal sa réew saafara problème mu jóge ci yow. waaw dañ ciy sant yàlla parce que c'est pas vraiment la première fois. ñuy dox lu mel nii parce que bi ñu nekkee ndaw ba léegi ñun loolu lañ doon yëngu gestion crise scolaire donc yàlla mooy xëy na doog indi fruit yi léegi rek donc loo gis rek suñ borom dafa am fu mu koy jaarale dañuy def lu sant ci yàlla parce que ñu bëri jéem nañ te ba ñuy jéem it bëggoon am saafara moo tax kon bu ko yàlla jaarale suñu jëmm yi tamit sant yàlla parce mbir mi yëpp lépp yàlla la donc moo tax ñu ci sant yàlla di ñaan suñu borom également euh, lépp loo xam nu ngi dox ci Sénégal ñun bëgg nañ ci dugal suñu loxo parce que ay citoyen lañ ay sénégalais lañ te réew mi daf ñu ñor waaw. jërëjëf jërëjëf d'abord peut-être une première question avant d'aborder à la seconde qui est Modou Thiam votre parcours professionnel en tant qu'enseignant. bon Modou Thiam c'est un citoyen sénégalais euh, mais habitant à Thiès euh, euh, je suis dans le dans la politique bien sûr. Euh, en dehors de, mon, de mes activités professionnelles et l'enseignement, je m'active pleinement dans le sociale mais également dans la politique. Et Je suis enseignant, ça fait bientôt 18 ans. en ce moment Bon, présentement, je gère une classe de CM, donc euh, à l'école d'Ambadjarat. Et comment avez-vous eu l'idée d'organiser une rencontre entre le chef de l'État et les syndicalistes enseignants, notamment le, G6 Ouais, donc tout d'abord, euh, je voulais vous signaler que je suis également un syndicaliste. Euh, au retour euh, d'un AG, une assemblée générale organisée par euh, le G6 de, au niveau local, au niveau de Thiès, vraiment j'ai pesé l'ampleur de la grève et je me suis dit, tiens, je n'ai pas le droit de croiser les bras et je sais que cette grève-là, ça pour nous vraiment mener vers une année blanche. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de dire que puisque j'ai des relations avec un proche euh, de la Première et un proche du Président qui s'appelle Abdou Aziz Mbaye, un ministre conseiller. Je m'en suis ouvert à lui. Je dis que, mais, monsieur le ministre, je pense que la situation est grave. N'est-ce pas Le moment est tellement compliqué que je pense qu'il faudra chercher une solution par rapport à la crise scolaire. Il m'a demandé qu'est-ce que vous voyez comme solution. Je que d'abord, essayons d'organiser une entre le G6 et la Première Dame d'abord. Puisque, le président de la République, lui, et que le ministre de l'Éducation, lui, le courant, le courant ne passe plus entre lui et les syndicats. Donc, essayons de voir la, de, essayons de voir la diplomatie souterraine, c'est-à-dire passer par la Première Dame, qui, après sa compréhension, pourra effectivement essayer de s'en ouvrir à son mari. Ainsi qu'ils ont accepté l'idée, ils La maman nationale, la Première Dame, nous a invités à Dakar, chez elle. Arrivé là-bas, on a discuté pendant plusieurs tours d'horloge, n'est-ce pas D'abord au téléphone, Mais ensuite, vers 22h, il nous a demandé il faut attendre le président de la République. Parce que le dernier mot lui revient. Et puisqu'au téléphone, vous ne, vous ne vous êtes pas encore accordé, attendez qu'il soit présent, peut-être certainement ça peut évoluer. Ainsi, on attendait vers 22 Donc le président de la République est venu à, et, et rentrer chez lui, accompagné du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah. Donc quand ils sont venus, on a poursuivi les négociations jusque la, dans la nuit, vers, vers 2h on a eu vraiment une solution. C'est ainsi que vraiment on a trouvé un dénouement heureux au quiz scolaire qui a vraiment duré presque plus de 4 mois. Est-ce qu'il a été facile de, de, convaincre euh, vos camarades syndicalistes de rencontrer la première dame Ce n'était pas évident. Bon, ce n'était pas évident, mais vous savez, comme Dieu fait bien les choses, au moment où j'appelais le, le, le, G6, ils étaient déjà en réunion avec, je pense, euh, un calife général d'une conférence, n'est-ce pas Quand je leur euh, propose l'idée, ils m'ont dit en tout cas, nous ne sommes pas demandeurs. Mais également, nous ne pouvons pas rejeter des, des, des, offres comme ça. Mais si vous êtes sûr que vous pouvez créer le cadre, nous nous sommes preneurs. Je, les, je, leur, je leur ai rassuré en leur disant qu'il bon, n'y a pas de problème. C'est moi qui suis, nest pas, le, la personne morale qui va essayer de démarcher ça. Même la première dame n'est pas demandeur. Mais en tant que citoyen, en tant qu'également euh, un acteur politique, je pense que je pouvais donner ma, euh, une médiation par rapport à ça. Ils ont accepté, donc j'ai conduit la délégation. Et maintenant, avec, euh, avec le recul, on a beaucoup épilogué sur le rôle de la Première Dame. Avec le recul, quelle analyse vous faites de la situation, de tout ce qu'on a dit Bon, vous savez, ils n'ont rien compris parce que la Première Dame, d'abord, est une maman nationale. C'est une parente d'élèves. Et je rappelle qu'elle n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire. elle n'a pas pris de décision. Quand on paraphrasait les, protocoles d'accord, elle n'était même pas Elle n'était même pas Donc ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle devait faire en tant que d'abord citoyenne, en tant que Sénégal, mais également en tant que maman nationale, c'est d'épauler son Parce que nous tous, nous avons en, en, un de notre vie été, été ou épaulés par notre très épouse. Donc c'est ça qu'on attend d'une première dame. Donc ça a toujours été comme ça. Madame Viviane Wade a, a, euh, des écoles Ninefecha. Madame, euh, euh, la, Madame Diouf également, Elisabeth, avait fait même, la même chose. Pourquoi pas elle également, à, sa, à sa, manière de faire, ça, elle œuvre dans le social. Et moi, je sais son engagement dans le social. Parce que dès l'ouverture des, des classes, elle m'avait envoyé plus de 2000 kits scolaires qu'on a distribués aux élèves nécessiteurs. Donc je sais que elle qui avait dépensé autant d'argent pour aider des élèves nécessités ne pouvait pas rester les pour euh, euh, observer que Sénégal connaît une deuxième année blanche. Mhm. Avec le recul également, peut-être vous avez le sentiment d'avoir rendu service à la nation Oui, je rends à Dieu parce que je suis très fier. que je ne savais pas comme ça par la population. Mais puisque Dieu fait bien les choses, nest pas, j'ai des appels un peu partout à travers le Sénégal. Aujourd'hui, vous Euh, sociale était venu jusque dans, euh, au sein de mon établissement pour me remercier et organiser une, euh, un sargal à mon, intention. Vraiment, ça me va droit au cœur. Donc je, ne peux que rendre grâce à Dieu, mais également remercier tout le monde. Et vous étiez là ce matin pour, disons, rendre hommage, remercier euh, Liwan Finan Sargal, Mamoudou Cham, qui a peut-être l'idée d'une solution qui a un peu réglé la crise scolaire au Sénégal. Quels sont vos sentiments Mais vous l'avez dit, euh, Sargal rendre hommage à un homme, grand homme qui, a fait quelque chose pour les générations à venir. J'ai l'habitude de dire que les grands esprits, ils travaillent pour des générations. Les petits esprits, ce qui les intéresse, c'est des échéances. Moudou fait désormais partie de l'histoire euh, de ce pays. on ne pourra plus réécrire l'histoire euh, <coughs> dans le domaine du système éducatif de ce pays sans nommer Modou Thiam de l'école Demba Diakhaté. Parce que grâce à lui, euh, le climat social qui s'est détérioré pendant 3, quatre 4 mois, grâce à lui, grâce à ses actions, ben, les syndicats se sont retrouvés autour du président de la République pour enfin trouver un dénouement, malgré les démarches de tous les acteurs de l'école, parents d'élèves, syndicats, dialogue social, marabouts, acteurs sociaux, tous, chacun a essayé. Mais Dieu a voulu ben, que l'action euh, de, de, de, de, de Modou Cham euh, est enfin entendue par Dieu, et que ses prières et que l'action aboutisse. Voilà, c'est pourquoi ben, je me suis déplacé, moi, en tant que coordinateur du comité dialogue social, entouré de mes, de, de mes collègues, le vice-président et le secrétaire général, pour venir rendre un hommage vibrant, appuyé à Cham, dans son école d'origine, l'école d'Embadjahaka, pour lui dire de vive voix ce que vous avez fait. Vous l'avez fait pour le dialogue social, mais vous l'avez fait pour l'ensemble des acteurs de l'école. Donc on ne peut que vous remercier et prier pour que demain, ben, euh, Dieu récompense vos, vos, vos efforts. Et peut-être aujourd'hui que la crise est derrière nous, il reste peut-être un suivi que vous, allez peut-être euh, faire ben Nous, euh, en tant que dialogue social, tout ce qu'on peut faire comme suivi, les engagements qui ont été pris par l'État, ben, qu'on soit garant, on, on, serait garant de ces engagements. C'est vrai qu'au niveau de la de signature, le dialogue social niveau supérieur euh, a été témoin. les parents d'élèves également, parce que moi qui vous parle, je suis issu du mouvement en charge l'organisation. Donc, euh, tout ce qu'on peut dire, on fois-ci, ces engagements pris par l'État seront respectés. Voilà. Surtout que c'est des engagements qui sont planifiés. Euh, avant, de, avant fin 2018, ben, il y aura des, des engagements qui seront euh, et le reste sera planifié en 2019 et 2020. Tout Je... en espérant que les crises ne euh, à fait, tout à fait, parce que vous savez, le fait, moi je crois que le, le problème, c'est de sauver l'école une bonne fois pour toutes. Hein? Euh, sauver sauver l'année, ça ne rime à rien du tout. Mais essayons de sauver l'école une bonne fois pour toutes. Je crois que, ben, au sortir de cette crise, mais je crois que, ben, euh, faudrait encore que les différents, différents acteurs de l'école se retrouvent autour d'une table pour que qu'on soit, pour qu'on vraiment pose, les vrais problèmes de l'école, qu'on fasse revenir la confiance d'abord. Il faudrait que cette confiance entre, existe d'abord entre l'État et, et, et, les, et, les enseignants, mais que les parents d'élèves <coughs> et, les acteurs de l'école, <coughs> que nous sommes également, nous également, qu'on s'engage encore pour que euh, ben, ben, ben, les différents engagements soient respectés. remercier mes parents, mes proches, mes amis, mais particulièrement ma chère maman qui est ici présente et lui souhaiter une longue vie et santé de fer. Remercier l'équipe pédagogique de l'école d'Emma Je ne voulais pas citer. Je les remercie vivement. Mais remercier également la délégation du comité dialogue social dirigé par le doyen Maudi Diouf et notre papa euh, Auguste Tal et toute la délégation et docteur Sadir. Mais également remercier toutes les autorités religieuses comme politiques ici présentes. Je ne voulais pas également citer, mais je voulais tout simplement que vous me donniez la délégation de citer mon très cher ami, mes très chers amis, Monsieur Demba Ndiaye, un ami et frère. Monsieur Abdoulaye Falmaou, mais également mon ami et frère, Monsieur Biran Gueye. Je voulais également citer les directeurs ici présents, le directeur d'école d'Ondoufouk et sa délégation, M. Momodou Kamara, M. Kand, l'école d'Arsalam, et que sa délégation, y compris ma sœur, Mme Mathis Senghor Bey, et toute sa délégation. Je ne voulais pas entrer dans les détails, mais je pense que vous me permettrez de citer mon directeur d'école, Mouroufal, qui a permis, qui nous a facilité cette occasion. Mais notre ex-directeur, mais actuellement parent et ami, M. Adaman Fall. Je voudrais également remercier monsieur Ahmed Dité, qui est un ami, un marabout, un frère et tout. Et M. ainsi que tous ceux qui sont ici présents. Je ne voulais pas vraiment citer, mais mention spéciale à mon frère et ami Abdelaziz Mbaye, ici représenté par mon ami et frère Maguette Diaye. L'équipe pédagogique d'Emba je n'entrerai pas dans les détails. Mention spéciale et sapo. La victoire vous appartient. Le mérite vous revient. La cérémonie qui nous réunit ici, Moi, je le prends avec beaucoup de philosophie, mais modestement et humblement. Car il n'y a que Dieu qui a mis sa main. Parce que j'avais juste l'idée, j'ai essayé de mettre ça sous forme de projet. J'en ai échangé avec un ami et frère, un confident, un compagnon de longue date, M. Malik Fall, ici présent. Puisque moi j'avais une casquette politique, je lui en ai parlé. Lui qui en a une, qui est purement syndicale. Ensemble, on a mis sur place un projet pour avoir un dénouement heureux du crise scolaire qui a tellement duré. Ainsi, mon ami et frère Abdou Aziz Mbaye, le ministre conseiller, un proche du président de la République, mais également un proche et un confident de la première dame que je salue en passant, Madame Faisal. Je l'ai dit, grand, moi j'ai un projet et je voudrais que la première dame en tant que maman nationale, en tant que parent d'élève, parce que j'en ai la, la certitude et la conviction que personne n'est plus intéressé par l'école que cette, cette brave dame. Pourquoi Quand l'école avait ouvert ses portes et j'ai remarqué que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de parents d'élèves qui avaient des problèmes, qui s'écroulaient sous le poids des fournitures et autres, j'avais fait appel à M. Abdelaziz qui, à son tour, avait sollicité la première dame qui m'avait donné beaucoup de lots de fournitures que j'avais euh, distribué aux nécessités de quartier et de tout Donc je sais que personne n'est plus intéressé par l'école que cette dame-là. Abdou Aziz, quand je lui dit le projet, il m'a dit, Tiam, je pense que la première dame n'est pas une institution et ça peut Je complication, il a pas, si si vous me permettez, que proche de la première dame, de me régler une audience. Le reste, moi, je vais m'en occuper et je sais que Dieu sera avec moi et ainsi Dieu a été avec moi parfaitement. Après trois jours de réflexion, il, est, il est revenu vers moi pour me dire comment tu veux l'audience. Je dis que l'audience se tienne au palais, mais je voulais tout simplement que l'audience ait lieu chez la première dame, comme une Sénégalaise qui reçoit ses ordres. Ainsi, l'organisation est faite. Un vendredi matin, Et un, un, jeudi matin, il m'appelle pour demain vous m'amener la délégation. Le vendredi, je me suis présenté à l'école comme un bon enseignant. J'ai fait mes cours. Je me rappelle mes chères sœurs, collègues ici présentes. Ce jour-là, elle m'avait interpellé pour me dire est-ce que vous ne pensez pas qu'on devait s'arrêter de faire la grève parce que ça a, ça a tellement duré et que le gouvernement risque quand même de couper des têtes Madame Ducot, notre maman 13 ans, Je leur dis que mais Madame Ducot, je pense que, et Madame Ami, je lui dis vous je pense qu'une solution, il y en aura aujourd'hui. Il me dit mais comment tu tu penses quoi parce que j'avais le projet en tête et je sais qu'à 13h, je me débarquerai à Dakar chez la première dame avec ma délégation et qu'une solution sera trouvée. Il me dit, toi, qu'est-ce que tu dis, mais je sais que tu es en train de, planifier quelque chose. J'ai ri, j'ai rigolé, puisque moi, à que je que je joue. puisque je suis un élément tout à fait taquin, hein, euh, un comédien. Donc ils me prenaient comme un comédien. À 13h, Madame Khadif, euh, Khadissa, Madame Fall Khadissa, qui présente que je devais si en passant, me prête sa voiture. Elle est là, présente, accompagnée de Diaro Nyan. C'est une amie. C'est tout pour moi. Elle m'a donné une voiture. Elle a mis tout l'essence qu'il faut. Il m'a euh, affecté un chauffeur. Il nous a de 13h à 14 mois et Malifal à Dakar. Arrivé chez la première dame, j'ai conduit la délégation du G6, que vous connaissez, je pas besoin de citer. La première dame nous a reçu. On a échangé, échangé pendant plusieurs tours d'horloge, ça n'a pas été du tout facile, pas du tout. Mais je voulais juste insister et préciser sur quelque chose. La première dame n'a joué qu'un rôle de facilitateur. Elle s'en est arrêtée là. Le président de la République, accompagné de son gouvernement, nous a tenu par presque plus de 10, 10 tours d'horloge, je dis bien. On n'a pas réussi à avoir gain de cause. Vers 2h du matin, 3h du matin, le président de la République, que je salue et remercie en passant, a fait appel à tous les techniciens du de, des Finances pour voir comment faire pour arrondir l'indemnité de logement qu'on voudrait amener à 100 000 francs. C'est les techniciens qui ont creusé, faire des réglages, des rectifications jusqu'à jusqu'à rassurer au président de la République que maintenant c'est possible à condition que les derniers 10 000 qui restent, qu'on l'amène en 2000, 2000, 2020. Ainsi, une solution est trouvée et c'était l'apétose dans la salle dite de la, de la Tout le monde était vraiment content, tout le monde était libéré parce qu'on n'en revenait même pas et la situation était très critique. Donc d'une manière très ramassée, vous conviendrez avec moi que vraiment l'émotion m'a tellement est, est, forte que je ne peux pas tout résumer, mais j'ai essayé tout simplement de tracer le film de l'audience. Mais Malifat en est venu largement et c'est ça qui, est, conduit à la dénuement, à, au dénuement scolaire. c'est la main de Dieu Parce que des khalifs généraux on fait, ont essayé, ça n'a pas marché. Des autorités ont essayé, ça n'a pas marché. Même dans un mot du ici présent, ils ont tout fait. Mais Dieu fait que Dieu, sait, Dieu fait bien les choses. Il comment les faire, le moment, l'homme qu'il faut, l'endroit et le moment opportun pour le faire. Il a choisi ma modeste personne pour essayer de trouver une solution par rapport à cette crise. C'est pourquoi je dis que tout, est de, tout, tout vient Donc la solution, la solution divine. Ça peut vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire pour je le prends avec beaucoup de philosophie. Je rends grâce à Dieu. Ce jour-là, je me rappelle mon ami et marabout Goussan Ahmed Lamedjite m'avait dit, m'avait demandé et recommandé de jeûner trois jours d'affilée pour rendre grâce à, à Allah le Tout-Puissant. Et je l'avais fait comme ça. Donc, si aujourd'hui, des citoyens, des parents viennent ici pour dire qu'ils vont essayer de me remercier, moi je pense que c'est moi qui dois les remercier. Parce que lui, i présent, Doyen Moudoudou, moi je le suis depuis très longtemps, j'étais encore élève au niveau du lycée Malixi. J'avais mis sur place un mouvement qui s'appelle Mouvement Élève Encart Élève. Ils œuvraient dans le social, comme beaucoup de gens l'ont témoigné ici, bien sûr. Je suis né dans ça et je compte dans ça. Je l'entendais déjà, il a une fois même présidé une de nos activités qu'il a certainement oubliée des jeunes de Thiès. Donc ça fait très aujourd'hui, si l'histoire recolle les morceaux jusqu'à nous réunir autour d'une même table pour essayer de me remercier, je pense que je ne mérite pas ce remerciement, mais je leur retourne ça et je tous les collègues ici présents et tous les enseignants et enseignantes ici présents. Le mérite vous revient. Le mérite revient à la à le mérite revient à la la circonscription TSS, mais également le mérite revient à l'école d'Emba qui m'a forgé, qui m'a fait mes premiers pas sous la houlette non seulement du directeur Mamoudou mais également de Adamo Fall, qui, dès mes premiers pas dans l'enseignement, j'étais trop belliqueux, c'était trop compliqué. Lui, il est là, il peut faire les témoignages, les, les Il en a fait d'ailleurs. À chaque fois, j'essayais vraiment de, de, de perturber. J'étais un gars ingérable. Parce que bon, un jeune qui vient d'embrasser le métier, donc vous comprenez que ça a été très en tant qu'un jeune syndicat, mais également un jeune politicien. j'étais très compliqué. Mais il a tout fait pour me façonner, m'inculquer des valeurs. C'est ça qui explique sa présence aujourd'hui, mais également la présence de beaucoup de gens ici présents. Même si nous sommes pas dans le même parti, dans la même euh, obédience politique, vous voyez qu'ils sont là présents parce que nous conservons les relations humaines. Et je pense que l'homme a le plus important dans sa vie. je ne sais même pas quoi, qu'est-ce mais sachez que c'est l'émotion. Je suis très Je ne retrouve pas mes mots. Je voudrais juste ne pas euh, rester offen, mais je suis très content. Je remercie tout le monde. Je remercie les élèves. Je remercie les parents. Mais également, je remercie la presse ici présente. Je rends grâce à Allah le Tout-Puissant et que vraiment l'école sénégalaise connaisse une paix durable. Donc je m'en arrête là et je m'en excuse si je n'ai pas été du tout cohérent ou j'ai...